الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله يقول الله عز وجل في الحديث القدسي ما غضبت على أحد كغضبي على عبد أتى معصية فتعازمت عليه في جنبي في جنب أو في إخواني أوهى الله لداود يا داود لو يعلم المدبرون عن شوقي لعودتهم ورغبتي في توبتهم لذابوا سوقا إلي يا داود هذه رغبتي في المدبرين عني فكيف محبتي في المقبلين علي بقيتي الله تبارك وتعالى ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu borom noo ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko sunu xutba mooy ana al gafuru rahim man yàlla maay jéggale man yàlla maay yërëme moo tax sunu borom subhanahu wa taala bu mu waxee ne mooy jéggale di yërëme dafa wax ci hadisul qudsi mu ne maa gadibtu ala ahadin ka gadabi ala abdin ata maasiya man yàlla sama mer li muy rëy rëy rëy rëy rëy mi ngi gën a rëy ci waa kaw waa ji nga xam ne daf maa tooñ dafa def bàkkaar bi mu defee bàkkaar ba pare lan moo ko waroon mooy mu tuub dellus ci man waaye mu rëy rëylu rëy jàpp ko ba mu lànk ne du dellus ci man yàlla nee na li may mer yépp sama mer li muy rëy yépp ci waa ji la gën a rëy allahu akbar kon kan mooy sunu borom ci ñun nga tooñ yàlla yàlla ne la ñëwal tuub ma baal la nga lànk féete lu rëy borom bi nee na sama mer li muy rëy rëy rëy ci kaw waa ji la gën a rëy moom mi nga xam ne dafa rëy ba lànk ne du ma du dellu si ci man yàlla wax yu ne yonent yàlla daawud mu ne ko yaa daawud law yaalamu almudbiruuna an sawqi li awdatihim ay daawud gaa ñi ma woon ginnaaw sama jaam ñi nga xam ne dan maa woon ginnaaw jublootuñu ci man cëy bu ñu xamoon law yaalamuuna almudbiruuna an sawqi suñu xamoon man sama mbëggeel ni mu rëye li awdatihim wa ragbati fi tawbatihim ak man yàlla ni ma yitte woone ñoom ñu tuub dellusi kon la zaabu sawqan ilayya kon de danañu danañu ruy danañu seey buñ xamoon ni sama bëgg ñu dellus ci man toll suñu xamoon ni ma leen bëggee yërëm suñu xamoon li ma leen dencal kon danañu seey ngir bëgg a dellus ci man yàlla moo tàllal yàlla moo tàllal jaam yi loxo ne leen laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru zunuba jamia wa innahu huwa alxafuru rahim mbokk yi kenn ci ñun dégg bu muy dégg wax yàlla subhanahu wa taala di wootewaat jaam ñi pour ñu tourner kenn ci ñun warul diis ndax amul kenn ci ñun ku amul bàkkaar amul kenn koo xalaat ci kaw suuf sa xel nekk ci moom ngay jàpp ne amul bàkkaar kookoo ëppale kookoo ki ëpp nit ñi bàkkaar waaye yàlla moo bari yërmande subhanahu wa taala jalla jalaaluhu iblis nee na yàlla laa azaalu axwiihim maadaama arwaahum fi ajsaadihim yàlla ne ko laa azaalu astaxfiru lahum mastaxfiruuni iblis nee na yàlla du ma bàyyi jaam ñi de dañoo laaj sufiyaanu sawri ne ko ayanaamu seytaan ndax seytaane dana nelaw mu ne law naama lastarax naa su nelawoon nu noppalu bu nelawoon nu noppalu seytaane ne yàlla duma bàyyi jaam ñi ndeyjoor ak càmmoñ penkook sow dinaa leen dikkal danaa fexe ba duñ la topp danaa fexe ba nu fees dell ak bakkaar yàlla ne ko duma deñ di leen jéggal fekk ñu ngi may jéggalu duma deñ di leen jéggal fekk ñu ngi may jéggalu yàlla nee na daawud su jaam ñi xamoon ñi ma woon ginnaaw ndax iblis moo leen xëcc ñu topp iblis ñooñu bu ñu xamoon li ma leen dencal ci mbégte ak bëgg nu dellu si ci man la zaabu sawqan ilayya kon danañu seey ngir bëgg a dellu si ci man yaa daawud yow daawud haadihi ragbati fi lmudbirin anni haadihi ragbati fi lmudbirina anni fa kayfa mahabbati fi lmuqbilina idan bu fekkee ñi ma woon ginnaaw laa dencal lii ñi ma woon ginnaaw ñoom laa dencal lii kon ñi jublu yàlla moom ñooñu lu ñu war a am mbokk yi ñi woon yàlla ginnaaw la yàlla dencal cofeel ñooñ la yàlla dencal mbégte ñooñ la yàlla bëgg ñu tourné ñëw ba yàlla di leen xamal ne yéen ñooñu su ngeen xamoon li ma leen dencal ci cofeel kon da ngeen seey kon ñi jublu yàlla mbokk yi ñooñu lu ñu war a am kon ñi dëkk ak yàlla guddeeg bëccëg jublu ko dend ak moom ñooñu mbokk yi lu ñu war a am yaa daawud haadihi ragbati fi lmudbirina anni fa kayfa mahabbati idan fi lmuqbilina alayya su fekkee leelaa dencal ñee kon ñii dëkk ak man guddeeg bëccëg nekk ci sama service kon ñooñu lan lan war a am yaqulu llahu aza wa jal inni la ajidu la ajiduni astahyi min abdi yarfau ilayya yadahu yaqulu ya rab ya rab fa aradduhuma fataqulu almalaika fataqulu almalaika innahu laysa ahlan litaghfira lahu فأقول ولكني أهل التقوى وأهل المغفرة أشهدكم أني قد غفرت لأبدي حديث القرسي يننت بي نينا يالا نينا من يالا رسنا ab jaam yëkkati ma ay loxoom ab jaam bu toog ci basangam toog ci sijaadaam toog ci benn ruqam yëkkati yàlla ay loxo ne ko yaa rab yow sama boroom malaaka yi ne déet yàlla kii dey bul ko tont ndax kii moom yelloowul njéggal yelloowu ko de yàlla ne leen walakinni ahlu taqwa wa ahlu lmagfira ushidukum anni qad gafartu li abdi yàlla ki yàlla wu ko yàlla ne malaaka yi bàyyi leen ndax man ku ma xam xam ne maay ñooñu njéggal maay ñooñu ragal ñi ragal man dong lan am ñi bëgg ku leen jéggal man lañu am amuñu keneen ku dul man kon nag yéen samay malaake maa ngi leen seedeel ne sama jaam bi jéggal naa ko mbokk yi bu nu déggoon diine duñ wax duñ am bakkaar waaye guddi gu nekk danañ set wicc bala nuy tëdd bu nu xamoon sunu diine nu dégg ko kenn du wax ne duñu moy duñu tarxiis ndax ay doomu aadama lan kulli ibnu aadama xata wa xayrul xataaina tawaabiin doomu aadama yépp defkatu bàkkaar lañ ñi gën a baax ci defkatu bàkkaar yi mooy ñiy tuub muznibun wa abnaul muznibun yaqulu ibnu mas'ud law alimtum zunubi la rajamtumuni bil xijaari xatta al mawt ñun ñëpp ay bàkkaarkat lañu lu tax ndax ay doomu bàkkaarkat lañu amul ko ci ñun ku dul def bàkkaar waaye ibnu mas'ud nee na ibnu mas'ud mooy ki yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne ñaari tànkam yi moo gën a dëgër ci yàlla montagne uhud ibnu mas'ud mooy ki yonente bi ne ku bëgg jàng alxuraan ni ko yàlla wàccee na nga jàng comme ni ibnu mas'ud di jàngee moom ibnu mas'ud moo ne sahaaba yi mu doon àndal su ngeen xamoon samay bakkaar di ngeen ma dóor ay xeer ba ma dee su ngeen xamoon samay bakkaar di ngeen ma sànni ay xeer ba ma dee kon ibnu mas'ud bu ne moom dafa fees bàkkaar kon nun nag waaye nekk na nag buur boo xam ne buñ ko tàllalee ay loxo muy lu dëgg ci ñun moom yàlla subhanahu wa taala mu baal nu jaa fi lxadis innahu ida rafa al abdu yadahu ila alsama wa huwa aasin fa yaqulu ya rab ya rab فتحجب الملائكة صوته الله أكبر فيكررها يا رب فتحجب الملائكة صوته فيكررها يا رب فتحجب الملائكة صوت وفي الرابعة فيقول عز وجل إلى متى تهجبون صوت عبدي إلى متى تهجبون صوت عبدي عني labbayka abdi labbayka abdi labbayka abdi labbayka abdi ñëw na ci xadis kursi yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ab jaam bu yëkkatee loxoom jëm kaw asamaan fekk mi ngi mooy yàlla dafa mooy yàlla léegi léegi daw dugg ci salle de bain wala toilette am préparé jàpp sangu ñëw lal si jaade am jàkkaarloog yàlla ne ko yaa rab malaaka yi dañuy dañuy ub bunt boobu malaaka yi dañuy jéem a bloqué baat bi pour baat bi du dem kaw asamaan ndax léegi la mooy yàlla ba pare bëgg na yàlla su malaaka yi jéemee bloqué baat bi jaam bi dellawaat ne yaa rab malaaka yi bloqué waat jaam bi dellawaat ne yaa rab malaaka yi tëjaat ci ñeenteelu yoon bi la yàlla di wax ak malaaka yi ne leen waaw yéen samay malaayika kañ ngeen di bàyyi baat bi mu yéeg nag kañ kañ ngeen di bàyyi baat bi mu yéeg nag lu tax ngeen bëgg ko bloqué lu tax ngeen bëgg a tëj baat bi allahu akbar mata tahjabuna sawta abdi an nii te ngeen a bëgg a freiné sama baatu jaam bi pour du ñëw ci man lu tax bu malaaka yi bàyyee yàlla ne jaam boobu labbayka ya abdi wuyu naa la yow sama jaam wuyu naa la yow sama jaam wuyu naa la yow sama jaam mbokk yi kon bu fekkee ne sunu borom nii la mel ci ñun bu fekkee sunu borom nii la bëree yërmande su fekkee sunu borom nii la nu bëggee su fekkee sunu borom nii la yaatoo ndax war nañu doxale kiiraay sunu digganteeg moom kon kon ndax war nañ koo sori kon ndax war nañ koo foñ kon ndax war nañ koo daw kon ndax war nañ koo ñàkk bëgg déedéet bu nu déggee kan mooy sunu borom ibnu adam sunu borom mooy woo doomu aadama xalaqtuka bi yadi wa rabbaytuka bi ni'mati yow sama jaam maa la bind ci sama loxo laa la defaree waxuma kenn mu defaral ma la maa la bind ci sama loxo man yàlla subhanahu wa taala bi ma la bindee ba nga sotti wa rabbaytuka bi ni'amati maa la yar ci sama xéewal ngay dundee waaw yow limaza tuxaalifu nii tax ngay wuuteeg man yéen ñi bàyyi xool leen ko rek ci seeni doom yu ndaw misaal bu tuuti la ndax yàlla wees na foofu waaye xoolal sa doom bi ndaw bi rek bi nga ko jureeg léegi lu ne nga def ci moom ci dundam lu ne njàng dund lépp faj tout ndax bëgg nga xale bu ndaw boobu mooy la benn seconde kan ci ñun moo ko bëgg xale bu ndaw boobu nga xam ne yaa ko jur yaay léppam sababu mu gënee àdduna ci yow la jaar doom jooju bi muy ndaw boobu muy mag bëggoo mu mu mu fakkastalu lu toll ne ferñeent pour mooy sa kàddu yàlla nee na yow doomu aadama maa la bind ci samay loxo laa la defaree kenn sàkk la ko dul man moo tax tribunal bi gën a rëy diggante yàlla ak jaam yàlla lépp mooy bokkaale yàlla ne la maa la bind nga jaamu keneen ku dul man maa la bind tax au lieu nga jaamu ma nga topp keneen wala nga topp leneen yemoo ci loolu man yàlla maa la wërsëgal nga sant keneen allahu akbar xoola wërsëg ni mu rée ni àddina bi bëree ñëpp yàlla romb leen wërsëgal la yow walee nga sant yàlla wa amma bi ni'mati rabbik i'malu ala daawuda shukran wa qalilum min ibadiya shakur mel leen waa kër daawud dee leen sant yàlla waaye yàlla xam na moo tax mu ne néew na ci jaam yi ñu may sant mbokk yàlla nee na maa la bind ci sama loxo maa la yar ci sama xéewal limaada wa anta tuxaalifu nii wa taasiini lu tax nga may moy lu tax nga daw foñ ma lu tax man yàlla maa la fi indi maa la sàkk li ma lay bind kenn fekkewu ko su ma la reyee kenn du ci mun dërëm waaw yàlla bi muy bind nit kan moo ko jàppale kan kan moo ci dugal daraam bi doomu aadama di juddu kan moo ci jàpp bi ñëpp télé sax yàlla rek la bi ñu rawalee ndaw si jële ko ci kër gi daw dem maternité est-ce que docteur yi dafa ñëw rek docteur yi dugal seen loxo génne da ngay ñëw ñu ne la mat gi ñoragul toogal fee mu toog di onk di yuuxu naan yaa latiif waa kër gi buñ ci mënoon dara duñ ko rawale maternité bu ñëwee dañ naan mat gi ñoragul toogal fii mu toog di yuuxu wala muy vaye vient naan yaa latiif yàlla nee na maay toog ba mu neex ma ma joxoñ liir bi ne ko uxruj ayuhal mawlud bi xaqil malikil maabud yàlla nee na yoon bi liir bi jaar juddu yoon boobu maa ko ubbi fumma sabila yassarahu maa ubbi yoon bi mu yomb waaw waaw foofu ndoo doomu aadama buñ bi mu juddee ba pare buñ la nee fii la génnee doo ko gëm da nga xam ne yàlla la moo ko fa jaaral mu jaar fa yàlla nee na maa ubbi yoon bi summa sabila yassarahu maa ku ne génnal mu génn coow jibul kon yàlla la mbokk yi du kenn kon lu tax ñu foñ yàlla lu tax ñuy daw yàlla lu tax bëggunu yàgg ak yàlla lu tax bëggunu nekk ak yàlla lu tax mbirum yàlla di ñu gêné di ñu gêné bu ñu lay wax yàlla sax même chaîne yi télévision yi sax wala rajo yi na dem ngay wax na dem na dem lu sax bëggunu yàgg ak yàlla te yàlla xoolal fi mu jaar ak ñu nee la maa leen defar ci sama loxo maa leen wërsëgal lu tax ngeen may daw lu tax bëggu leen nekk ak man waaye wa iza rajaata ilayya tubta alayk allahu akbar lii ngay daw yëpp di dem da ngay gis ku toog fanweeri at julliwul musul woor musul topp yàlla mu dellu si ci yàlla benn minute yàlla takkal ko martaba bu kawe gis ngeen saxaratu firawna njabarkatu firawna yi seen dund yépp ñu ngi bokkaale ak yàlla benn minute lañ dellu si yàlla ñu rey leen ñu dugg aljanna jàng ngeen histoire saahibu yaasin yàlla yónni na yonent yi mu daw di leen dimbali naan gaa yi gëm leen yonent yi ñi yàllaa leen yónni gaa yi daal di koy rey bàyyi li ngay wax mu lànk gaa yi rey ko bi ko gaa yi reyee ci ay minutes yàlla dugal ko aljanna mu nekk biir aljanna di zibile naan yaa layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min almukramin qiila duxulul janna yàlla ne ko dugal aljanna mu nekk biir aljana di yuux naan gars yi yaakaaroon na sama dund lañ jeexal ndeke dañ maa teral yaa layta qawmi yaalamuun bi ma gafara li rabbi ak a neexoon gars ñi xam li ma yàlla jéggal teraanga bi mu ma defal lu tax parce que yàlla aljana la ko dugal aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa alghafuru rahim alhamdulillah الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بسيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أحبتي في الله جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من يحاسب الخلق يوم القيامة فقال الرسول الله فقال العربي بنفسه فقال النبي بنفسه فضحك الأعربي وقال اللهم لك الحمد فقال النبي لما الابتسام يا أعربي فقال يا رسول الله إن الكريم إذا قدر عفا وإذا حاسب سامح فقال النبي فقه الأعرابي mbokk yi benn arab dafa ñëw ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam nuyu ko ba pare ne ko ëllëg yowmal xiyaam kuy atte jaam yi bis bu yàlla wàccee jant bi ba mu tiim nit ñi ba yuur yi bax ñii ñaq bay feey ñii ñaq ba lapt ñenn ñi ndax taraanga bu leen yàlla defal ñu mel ne ñu ñaq mel ne ndox muy taw cef-cef moo leen laal ba keroog kuy atte jaam ñi yowmal qiyaam mu ne ko yàlla yonent bi ne ko yàllaay atte jaam ñi arab bi ne yonent bi ndax yàlla ci boppam bi nafsihi moom ci boppam mooy àtte yonent bi ne ko waaw bi nafsi yi moom ci boppam mooy àtte du wax kenn àtteel ma arab bi daal di reetaan fa daxika al arabi mu ree bi mu ree yemu ci wa qaala allahumma laka alhamdu mu ne yàlla maa ngi lay sant yow yàlla maa ngi lay sant fa qaala nabi li mal ibtisaama waaw yow looy ree lu tax nga kontaan bay ree nii ci laaj yi nga laaj fa qaala ya rasul allah moom arab bi mu ne yow yonent inna alkarima ida qaddara afa wa ida xaasaba saamaha xanaa xamoo borom kattan su àttee yërëm su rek lee jéggale ku am doole su àttee rek yërëm koo gis mu am doole àtte te yërëmul amul jikko yàlla tabaraka wa taala ndax borom doole day yërëme doole ak yërmande ñooy ànd àtte ak jéggale ñooy ànd allahu akbar àtte ak jéggale ñooy ànd kon loolu moom mooy diine mbokk yi bu la yàlla dénkee doole yërëmal ñu amul doole bu la yàlla déggee pouvoir yàlla dékk la kàttan yërëmal ñu amul doole yonent bi alayhi salaatu salaam bu daan dox di jihaad su borom gëlëm yi yéegee ba pare borom fas yi yéeg ñi am mbaam yi yéeg mu xool ñëpp war nañ mu ne amul ñëw ana ñi amul warukaay ñu ne ñu ngi nii mu ne nekk leen ci kanam ana jigéen ñi ñu ne mu ngi nii ñu ne mu ne nekk leen ci kanam jigéen ñi li jiital teg ci ñi amul waruwaay mu doog ne borom waruwaay yi topp leen ci lu tax tànk mën naa topp waruwaay ah waruwaay mën naa topp tànk waaye tànk mënul topp waruwaay. siiru siira du'afaaikum dox leen doxu ñi néew doole yonent bi loolu la daan doxee ku am doole da ngay gestu ñu amul doole sa ginnaaw di leen yërëm ak ci lu mu mën a nekk ci dund ci code ci faj ci dëkkaale ci lépp lu mu mën a nekk da ngay yërëm say mbokk irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama yërëm leen waa suuf waa kaw asamaan yërëm leen arrahimuna yarhamuhum rahman ñi yërëmaate yàllaa leen di yërëm benn waaye am na ñeenti doom mu toog ci kanamu yonent mu ne ko am naa ñeenti doom benn doom musul saw sama kaw musul tuur ndox sama kaw yonent bi ne ko dafa am ñoo xam ne yàlla moo dindi yërmande ci seen xol loolu lu muy tekki am naa ñeenti doom kenn musul dem wanag sama kaw mooy musuma leen a fab ku amul yërmande moo dul fab xale moo dul fab ay njabootam moo dul akolaat njabootam jàngeen ci hadis yonent alayhi salaatu salaam ci kaw minbar la nekk di xutba mu sey Useynoog Asan ñuy ñëw dugg jàkka ji yonent wàcc wàcc minbar bi dagg xutba bi dem jël leen yëkkati leen ci kaw ñëwaat continuer xutba bi jàngeen yonent bi alayhi salaatu salaam ci biir jàkkaam Medinatul Munawwar mu sujjóot Useynoog Asan ñëw war ci kawam Ibn Abbas naan ni'mal farasu farasu kuma waaye waaye yéen ak yéen ba yéeg ci ba pare yemuñ ci naan Ali Ali Ibn Abbas ne waay waay yéen yéen a neex fas waay ku Moustapha nekk sa fas Muhammad waaye yaa neex fas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci julli la nekk de siggiwul su jot bi yàgg lool fekk xale yi ñoo nekk ci kawam di foo bugg leen yàqal seen fo noonu la ko am doole noonu la borom kër noonu la kilifa di mel ci ñoo xam ne daf leen a yilif daf leen a jiite yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna ala tibaayi wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinaabi allahumma ya muthabitu alqulub thabbit qulubana ala taatik allahumma fa nasaluk an tarudduna ila diinik maradan jamila allahumma ahsin aqibatana fi alumuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله